Heavy Waves.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 nag nee ñu ci état bu mu nekkoon état bu doy waar la ndax yàggaayu taax ba màgget ta màgget ba maara deetaali ba fi mu ne sax nee ñu ka moom taax ba ca boppam génnoon na dal di digal ñi ci des na leen génn leen ndax taax bi màgget gi mu màgget jéggi na dayo ba genn wàll gi sax ñu ko doon defar waaye geneen wàll gi desoon moo jékki-jékki xàppateeku dal di mabb daanu ba dal di def musiba jéego bi mu def bi tey ji amee na bi ñu woowee service de sécurité yi ngir ñu ñëw wàllu yoon bu ñu jaar ba munu def seen liggéey sax munuñu ko woon am ndax dëkkuwaay ya ni mu demee senegal nag moom loo wax ñu ne la yàlla baax na te ñuy gis musiba tiim leen sax ñu taxaw nan yàlla baax na ba musiba ne këlëb ki seen i kaw ku ne jóg di yuuxu moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax ñii nag moom ñaari xale yu jigéen lañu ñaari xale yu jigéen ñi nee ñu dañuy jàng waaye nag ñaari xale yu jigéen yooyu leen boole doy war ndax nee ñu dañoo mandi mandi ba ne tat di xeex ku ne dal di toj biteel di ko bojji sa morom ëskay ñaari xale yi jigéen yooyu kenn ki mu ngi woo ci tureel caam ka ca des di woo ci mari nee ñu tamit ñoom ñaar ay xarit dëgg lañu woon moo tax seen jëf jooju mujj naa teeri ca loxoy yoon ca tribunal flagrant délit bu ndakaaru di leen toppeeli tubaab naan cause blessure volontaire boo xam ne ñoom ñaar ñépp dañ ko gàll ci seenu loos mbir moomu nag nee ñu ci benn soirée la amee woon ci ab appartement privé ci appartement privé ca Almadi li ci am nag nee na ci kanamu yoon temps yépp moo xaritam bi régime bi coog mbaloo la ñu nekkoon ku ne di xoolee sa morom ne su ma la jàppee naa la def musiba ñoom ñaar nag bi ñu dajee ci soirée bi sànnante track bi dal di tàmbali naka noonu ci la ñu jàppante ñoom ñaar ku ci nekk toj biteel jàkkaarloo ku nekk di ko badax sa morom <laughs> waay waay waay waay waay ci ay jigéen beneen ndaw si jigéen si tamit ci kanamu yoon wax na Thiam ci boppam moo ko attaqué bi mu ko attaqué song ko toj biteel moom it ci la toj biteel daal di fayu moo taxit juge ba mujj na leen ko rokkos ndax ca biir tribunal ba la leen juge ba ne bàyyi leen góor ñi te dem toppatoo seen njàng waaw loolooy dëgg teg ci ne leen daal di leen posé ab question ne leen est-ce que bokk leen ci jigéen ñi jaay seen bopp ma ne bi melokaan kay ko gis laaj boobu laaj daal di leen ne na li ngeen nekkee boo yaboo ngeen bàyyi ko te njàng ndax fi mu leen di mujjee du fenn fu dul ca musiba ba noppi mujj leen a daaj ñetti weeru kaso yoo xam ne duñu ko tëdd moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca caaroy romb na doy waar ab waay daal bu am juróom fukki at ak benn nee ñu tàggoo xelam moom daal moo génne paaka ci koñ ba di lëmbee ñu naan deetawaay mu jël ñaari doomam yu jigéen tëj ci biir néegam bi mu leen tëjee ci biir néeg bi nag waa koñ bi alerte police bu caaro yi bi police bu caaro yi ñëwee dal di wax ak moom waa ji nangul ubbi bunt bi waa ji nag bi mu demee ba nar a def musibaam ci la police dagge bunt bi dugg ci néeg bi fekk ko mu tëral doom ji am ñetti at di ko waaj rendi waay waay waay waay waay mim réew fi mu ne waa ji teg nañ ko loxo waay waay waay moo tax ma ne leen mim réew jàngaro ji mu amee moo gën a garaaw korona mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz